salaamaaleykum mbokku internet Dakar Midi ak seen info ñu ngi am mbégte ak kontaante nee naa la demee saa ne gis nañ seen artiste ren def acte bu am solo lu rafet di ko jëmale seen gox ak jëmale di ko joxe benn jeune boo xam ne ku ci mel ne Bass Thioung nee Sénégal di ko ñaan yàlla yàlla gën a wéral baat bi yàlla yokk bu baax tey nga def acte bu nice Bass Thioung idée bi fu mu jógee bi ci gars yi rek la jógee xam ni li war la parce que ay jullit lañu weer bi mooy weer bu sell di benn yoon ci at bi ci daf rek xam nga di baalu ñëpp àq rek parce que amuñu lu ëpp koor waaw ay jullit lañu dëgg la. tey boo xoolee am na yenn artistes yoo xam ne dañu naan si koor gi lañ nekk pour ñu woor sax normal day xaw a jafe nan ngay dundee koor gi ak répétition yi actuellement nii parce que am na lu ñu waajal loo xamante ne xam naa ne bu ñu koor koor ba pare rek am na si lu ñu war a dëgmal si ay yeneen événements yi noo koy waajalee nekk c'est naturellement rek di ko dund ni ma ko daan dundee rek parce que xam nga dund nañ koor dundatu koor affaire yi nag koy jël rek à la légère gérer ko ni nga ko war a li koor gi moom ñu jox ko li moom tamit ñu jox ko loolu kese la. <laughs> keroog ñu si li nga xamante ne mooy raayu musique mm. nga bokkoon si artistes yi nga xam ni dañ la nominé. keroog tey bañ yi nga am bas. waaw yëg-yëg may am mooy chaque jour rek loolu saa yu ma ko gisee rek may gën a yokk jom lu ma doon def benn rek di ko def fukk parce que Bass Thioung moom Bass Thioung bu boppam la mooy maanaam dafa am style boppam am musique boppam ñëw créé benn affaire boo xamante ni tey jii suñu yëf la te waxtuma sax pour fii ñu ngi xool ni muy génnee feneen ci tànk yooyu mën laa nekk quoi parce que tey jii daf nañ ay single yi single yi single single single lépp nice macha allah léegi nag day wara neex tamit ñëw yootu leneen waaw loolu la rek waaw moo tax nag tib bi ma mujjee génne sax bu ko génnagul affaire ci bi mais du sax mbalax amul dara. amul dara luy sabar wala dara. kon nag affaire yi noonu la liggéey la rek waaw. diggante Bass Thioung ak artistes yi Bass Thioung ku ko ko dégg si détails yi. nga mhm. sekk ñëpp jàmm. milieu musique ku diggante ak artistes yi la. jàmm salaam ku bi nga moom moo jox la woo képp samay papa samay papa lañ dama leen jox cëru papa samay mag samay mag lañ dama leen jox cëru mag bu si amee ñu ma si mag sax xanaa new na dam nañ koy jox it cëru rakk parce que nag fii. yar lu mu la mayoon rek du la ko du la ko du la yar dafa am solo waaw ñaax respect aussi lu mu la xañul du la ko may man moom noonu laay dundee te loolu du ma si jug si kàttan suñu borom waaw di profité di baal waale artiste ah di ñaanal tamit suñu papa Thione Seck yàlla xaaree ko aljana suñu papa Thione Seck maa ngi koy ñaanal yàlla xaaree ko aljana waaw nekkoon ku baax nekkoon ku servir musique nekkoon koo xamante ni waaw chaque jour boo ko dégloo rek yeew ci àdduna yàlla na ko yàlla defal jàmm fa mu ne sama yaay fi mu waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm sama papa yëpp waaw di ñaanal ñëpp jàmm daal waaw nga nekk ndaw nekk si label boo xamante ne actuellement mën naa ne bokk na si ñoo xamante ne actuellement number one ci musique mooy Subatel actuellement am na am na façon boo leen ñëwee ak jamono jii am loo leen sens am rythme boo leen indi si musique jamono ji ñu toll Subateel na lay liggéey ak Bass Thioung Bass Thioung na lay liggéey ak tamit ak waa Subateel waaw Subateel ak Bass Thioung ñuy liggéeyee Matar sama mag la kooku sama la sama lépp la kooku maa affaire de liggéey sax am cër ci man boo xamante ni weesu na ay liggéey seetaanu ma ci dara lu taxaw ma taxaw ci bëggul ñëpp laa wax ñëpp kooku noonu la mel si ñëpp dañ koy ñaanal jàmm maa ngi koy ñaanal jàmm Matar Diop suba teel di ko ñaanal xam nga yéen yu oyof yàlla defal ko tawféex waaw waaw waaw mais affaire bi méttiwul ah daa yomb ndax nag suppu kanja maafe ceebu jën lépp ku ne day mun nga doxal sa dox musique loolu rek ku si nekk ak ki la bëgg ku si nekk ak ñi la bëgg maa mun amu fi maa xew amu fi ndax fii tey jii ku ne jaar na fi ku si ne sa temps dafa lu rafet te jéem a jéem a am loo xamante ne ëllëg doo sëgg fenn na ngay sëgg fépp looloo am solo rek waaw maa ngi maa ngi ñaanal daal musiciens yeeg artistes yeeg ñëpp tamit am jàmm Wally Seck aussi di ko yaan yàlla yàlla na ko yàlla may xolu muñu yàlla defal ko jàmm yàlla gën ko teg loxo waaw parce que nag suñu suñu nit ku baax la nit ku baax la nit koo xamante ni si naqar moo tax nag moo ko yàlla ko yàlla defal xolu muñ waaw moom njabootam yëpp ak yëpp yàlla leen yàlla defal xolu muñ waaw ma profité wax si loolu bientôt mën que ñu ngi koy laaj mais la dëgg la loolu loolu dafa leer waale waale waale waale allah mooy loolu waaw dañ koy def loolu dañ koy def waaw loolu day neex incha allah ko tee koy xaar non man nag Gambie laay korité incha waaw Gambie laay joué jour korité korite Gambie. waaw ah, nañ dem Gambie amul ragal <laughs> maa ngi Gambie rek maa ngi penc mi óol. waaw <laughs> ah, incha allah jaajëf eh. di defar ay ndogu di ko séddale tey sa gis-gis tamit ci loolu tey. waaw mais loolu rafet la. loolu rafet la xam nga weeru koor yàlla wax na ci li mu ci wax. weeru promotion la. ñoom artistes ku ne xam na seen diggante ak seen i soppe seen diggante ak nit yi leen bëgg donc ci weer wi weer wi la ñu war a profité pour mën a dab seen bànneex ci weer wi la ñu war a profité pour mën leen defal li ñu bëgg ci weer wi la ñu war a pour mën a euh, xool li suñu borom yàlla wax ci barke li suñu borom yàlla wax ci tiyaaba ñu fexe ko euh, euh, jëfe ci weer wi donc loolu bu nu gisee artistes yëpp def ko dañu leen di encouragé muy ñëpp nag muy ñëpp ak ku mu mënti doon bu ko defee rek jàppal ni encouragé nañu ko ci loolu quoi. dénk ñoom xale yi. muy ànd doon benn ah. comme ni ñu koy defee depuis euh, très longtemps de cela waaw ànd doon benn comme ni ko mag ñi defee ànd doon benn waaye aussi kenn ku ci nekk na gëm lii muy def kenn ku ci nekk na xam li muy def mooy valeur bi war a mën a tax suba ñu mën a dégg fu ne musique sénégalaise ku mel ni Bass sur le plan national tey kenn waxatu ko mais dañu naan tey sur le plan international carrière am foofu la ñu koy séntu donc loolu fierté la donc dañu naan leen gëm rek te jàpp

ñoo ñooñu di exporter la musique sénégalaise ñi ngi exporter la musique sénégalaise mais seen i yëf la ñuy exporter mais ba léegi.